doyen Bakary Domingo Mané euh, ñu ngi lay euh, nuyu di la dalal jàmm ci matinalu réew mi FM tey am mbégte lool dalal la. Fatou Ndiaye Ngom maa ngi lay euh, euh, mm-hmm. nga analyste politique euh, ñu tàmbali waxtaan bi ak politique justement moo gën a fës jamono yi notamment wàllum élection présidentielle ak benn bokk yaakaar ak candidat bi ñu bëgg tànn APR ñoo gën a fës ci jongante bi ndax juróomi candidat yi ñu tuddagum yëpp foofu la ñu bokk waaye tànn guñu te xeex bi commencé na jàppante yi barki démb ci siège yu APR ñëpp gis nañ ko. la noo gisee ëllëgu APR justement gannaaw bu président Macky Sall euh, tànnee candidat waaw balaa may tontu ci ëllëgu APR euh, li ma li ma xool d'abord mooy euh, boo ne boo nekkee démocratie normalement président buy dem du moom moo war a tànn ku ko wuutu askan wi moo war a tànn n'est-ce pas ku ko wuutu loolu lan lay tekki Euh, camp euh, fu mu nekk euh, disons ses alliés tout le ku bëgg a nekk candidat mu bàyyi comme ni Abdou Diouf waxoon jàkk yaa ngi ku bëgg a na woon na nodd mais du moom moo war a ku ko war a loolu Afrique la ngay gis loolu maanaam donc mënul fës à ce point xëy nit ñi mën nañu ko dans les couloirs ainsi de suite mais warul fës à ce point que au point que moom mu jox disons Uh, initiative à uh, qui qui uh, Moustapha Niass di di auditionné di di déglu di déglu n'est-ce euh, cinq candidats candidats après loolu bu weesoo dama ne ëllëgu euh, disons benn bokk parce que ëllëg boobu pour man amatul ëllëg loolu mooy dëgg. donc euh, ëllëg fii ku ko wax rek ñaata yaa ngi yaa njumte donc yaa ngi jum donc euh, le président de république moom wax na que du présenté à la présidentielle de deux mille vingt quatre donc foofu la yem donc fu ma nekk nii su fekkee dem na ba tànn ku ku ko voilà kuliyali non seulement si biir APR dina am problème mais si coalition bi dina am problème puisque si ñi juróom nit ñi tànn noonu ñu ñu war a euh, départager ñoom ñëpp si APR la bokk amul benn koo xam ne daal mu si yeneen parti yi ñu ñu nànk n'est-ce pas euh, benn bokk yaakaar hmm. donc loolu lan la tekki day wane ni que euh, c'est fini Benno dina tas parce que xam naa ne alliés yi euh, seen parti politique dina am ay voix yoo xam ne daal duñu d' accord li président ni nekk di def du ko duñu ko d' accord. PS commencé nañ voilà commencé non parce que PS boo jëlee PS aujourd'hui Aminata Mbengue Ndiaye moo wutu nest pas Ousmane Tanor Dieng moom lu ko soxal mooy poste bi ñu ko jox rek l' essentiel euh, poste bi ba ba ba ba cinq candidature <clears throat> disons euh, Macky Sall euh, bëgg na koo conserver mais loolu bu ko bëgg a conserver <clears throat> évidemment na def lu ko Macky Sall sant donc mais loolu bu ko defee nga xam ne daal si biir parti bi am na ñoo xam ne duñu d' accord donc c' est le cas aussi de l'AFP c' est le cas aussi ak yeneen parti yoo xam ne dañ naan que n'est-ce pas euh, APR donc l'un dans l'autre pour man c' est fini de euh, Benno dina tas et mais surtout problème mun na am entre si biir APR parce que bés bu tànnee euh, benn candidat ñeneen candidats yi dañuy fipp wóor na ma ne duñu nangu rangé derrière le candidat qu'il a donc l'un dans l'autre pour man affaire <laughs> ëllëgëm beneen affaire la euh, kii euh, nu tudd ci euh, benn moom kenn waxatu ko. Hmm. APR est-ce que yaakaar nga ni tamit dina ñu mucc ci lii di dessiné wu si sunu kanam mooy jàppante yi commencé mais bu président tànnee candidat ragal nañ ne ci lay gën a yokk. APR structuré wul amul tey loo xam ne moo ko organiser lu dëgër est-ce que APR tam dina mucc si situation bi. waaw déjà ñoom wane nañ seen bopp keroog euh, bu ñu demoon euh, seen euh, seen <laughs> permanence ay xeex yu métti na moo fa amoon nga xam ni yëf yi commencé na donc président Sarr tànnagul vraiment candidat nga gis ci réseaux sociaux yi nga gis ci presse bi ku ne ku nekk mu ne kii Amadou Ba la ki ne kii Aliou Ndiaye la ku nekk kii ne vraiment bun bun la donc dans tous les cas dans tous yooyu camp APR ku nekk dafa sàmm dëndëm dënd n'est-ce pas candidat ka euh, candidat donc loolu day wane ne que euh, APR du si mucc du si mucc à parce que déjà faiblesse parti bi mooy euh, nii yeneen parti structuré moom structuré woon noonu boo gisee dañuy wax APR ba léegi benn bokk yaakaar moo ko boot donc su fekkee léegi à partir élection yi ñëw euh, présidentielle bi donc ñu wane ne que déjà candi cinq candidats yooyu euh, amul ben n'est-ce pas bu benno mais ñëpp affaire la nga xam ne déjà loolu beneen problème la mais dans tous les cas bu ñu defee ci euh, camp APR dafa nekk parti boo xam ne daal mun naa ne sa amul amul amul numéro deux. Mhm. président rek mooy moo mooy mooy mooy njiit bi et euh, bu ñuy réunion tamit c' est de façon occasionnelle donc euh, euh, vue de parti bi doo ko doo ko sentir vraiment à la base. li ñu structuré euh, parti bi boo nekkee ministre nga nekk responsable <laughs> sa gox mais nekkul yoo xam ne la ay instance ñoo daje ñoo comme ni ñu defee yeneen parti comme le parti socialiste à l'époque donc euh, loolu amu donc loolu moo wane ne que euh, bi dama ragal tànn candidat Benno wala APR pour joŋante deux mille vingt quatre dina tax parti bi ci boppam vraiment tas APR dina dina dina tasar parce que dina tasar malheureusement parce que am na ñoo xam ne daal duñu d'accord ak choix euh, président de la hmm. waaye APR euh, ak lu mën a nekk ci kanamam est-ce fi mu ne nii mënuñu jàpp ne euh, bennoo moom ànd bi APR moo ci gën a gis boppam parce que déjà juróomi candidat yëpp foofu lañ jógee mais tey boo xoolee yeneen parti yëpp aussi dafa mel ni dundatuñu wax nga ko sànq donc coalition Benno Bokk Yaakaar est-ce que du APR mooy gagnant bi. waaw loolu nag loolu moo moom loolu moom si si et puis loolu day day wane ni disons personnalité disons président de la République moom moo bëgg aakimo yëpp te wane na boppam parce que moom mooy moom mooy patron bi moom moom mooy décidé donc ñeneen ñi ñeneen ñi allié yi ñoo am ñu si baat parce que ñooñu dañuy jox lu ñu bëgg rek mais ñooñu duñ wax dara. au contraire même est ce que da nga mos a déggee Moustapha Niass nee na non non man tamit am na am na du ko wax parce que moom xam na euh, fan la jaar ak président la république donc c' est la c' est le cas aussi pour Aminata Mbengue Ndiaye boo xam ne daal lu mu bëgg moom euh, nekk présidente euh, voilà ci institution bi voilà jusqu'à la fin n'est-ce pas du règne de de donc te pourtant ku mel ne ku mel ne Moustapha Niass amoon na par exemple Alioune Sarr ku mu mënoon a préparer wala docteur Malick Diop wala même Malick Gakou dem bu yàgg ñoo ñëpp ay potentiel candidat la ñu woon. waaw waaw même même même John ah tamit c'est un c'est un potentiel donc euh, euh, le ministre euh, buy retraite bu nekk ci bu gouvernement bi kooku tamit c'est un potentiel candidat Aliou Sarr Aliou Sarr moom day mel moom samp na dëkk ñoom ñëpp ñoom ñëpp fi ñu nekk nii dañuy nekk ñoom tamit di di di di di lu wóor te wóor mooy parti yooyu dafa am attitude ambivalente mooy leader yi dañuy euh, par A ou B euh, bëgg a des aux côtés du du président Macky Sall loolu day poussé à la barre nit fippu donc euh, ñu ñu fippu pour ne donc ñun dañuy am suñu kandidaa donc loolu moo am chef mouvement dans tous les cas vraiment dina dina nekk dina tas en ah, parti yooyu dina am problème romu que sa soit le parti socialiste wala l'AFP ñi euh, vraiment duñu bàyyi mu sedd mais euh, au niveau au niveau de la paire tamit boobu tamit dina am romu parce que bés bi président tànn ku mu bëgg rek ñeneen ñi tamit dañuy fippo Mhm. alors ci xeexoo bi ci wàllu politique nag euh, doyen dañu seetlu ne taskatu xibaar yéen saa yi bu ñu bindee rek da xam ku ne fi mu féetee loola nekk lu day waar loo xam ne nëbbatootul euh, tey journaliste bi nga doon ak waa CORED lan ngeen ci jàngat ak lan ngeen ci am comme ay pexe. waa xam nga euh, li ñu seetlu depuis que président la république ñoo nguur gi en 2012 dañu seetlu ne am na organe yu bare bare bare yoo xam ne daal vraiment defatuñu liggéey seen liggéey nu mu waree da ngay xam ni daal euh, Euh, président de la république euh, réussir na benn mbir mooy euh, faire en sorte que ñooñu vraiment ñu nekk des journalistes ñoo xam ne dañuy renoncer en disant à l'esprit critique loolu xam nañ ko mais la plupart du temps boo gisee gars yi di ko def am na ñoo xam ne dafa xaalis ne moo leen fa yóbbu président mun na def les moyens jox leen ay moyens mais bu boobaa ay donc moo tax ñu gis événement bu amee ci dëkk bi la lendemain nga gis seen yenn unité da ngay da ngay da ngay da ngay da ngay da donc euh, euh, benn misaal rek bi président bi annoncé. kër euh, di nekk candidat en deux mille vingt quatre mais man dama gis yenn unis dama day mais c'est nous nous sommes dans quel pays da ngay gis euh, ni ñu ko ni ko ni ko doon présenté da ngay mel ni euh, vraiment nit ku bees xam nga koo xam ne daal loxoom takkul ci dara ah, koo xam ne daal maar d'état vraiment amul lu mu repro lu mu reproché wu donc noonu la ñu ko disons représenté dans les dans les unis yaa ngi dégg donc euh, c' président de la république kenn mën naa tabler que vraiment <laughs> liggéey na c' est à dire le bilan matériel bi xam nañu ko ah. teg nañu seen seen bët loolu moom c' est sûr maintenant problème bi am mooy son bilan son bilan moral xam nga matériel donc euh, boobu foofu daal euh, foofu la problème nekk donc boo mm. nekkee journaliste dañuy def déglu boobu. Euh, reconnaître que président bi lii lii ak lii ak c'est positif par contre lii ak lii c'est pas c'est pas positif pour le pays euh, pour la population mais malheureusement ñoom surtout ñoo xam ne daal dañuy am xëy na moyen état dañuy euh, état bi daf leen dimbale donc ñooñu dañuy dañuy noppi rek di donc loolu moo tax ma ne nañu re nañ nañu ñëwaat si suñu liggéey suñu liggéey mooy fan la sukkandiku si lu ñu wax éthique et déontologie parce que au-delà de la technicité donc gën am solo suñu métier bi mooy éthique déontologie maanaam am na règle yoo xam ne daal boo taataan information ñu naan lii nga war a def lii nga war a def lii waroo ko def parce que boo ko defee lii lay jur donc euh, mais dans tous les cas journaliste euh, liggéeyam mooy liggéeyal askan wi parce que gis nga askan boobu askan boobu mooy mooy mooy patron bi parce que euh, président de la république mun na jël ay décisions yoo xam ne daal arrangé askan wi bu boobaa. yow journaliste da nga war a ranger wu derrière n'est-ce pas askan wi parce que loolu mooy sa raison d'être malheureusement dañuy bàyyi askan wi fële ku nekk li jël boppam loolu loolu correct euh, mu ngi def n'est-ce pas loolu gis naa ko parce que dañuy génne ay ay avis euh, journaliste bu defee naka sudul noonu da dañuy dañuy dañuy dañ koy rappeler alors et loolu vraiment c'est une excellente chose quoi malheureusement am na ñoo xam ne daal même boo defee loolu seen yoon yoon euh, yoon bu ñu nekk rek bu ñu ko bu ñu ko wàcc alors euh, leneen euh, luy actualité aussi mooy F24 mi bëggoon manifester ci àjjuma ji tey wante ñu tere leen que euh, préfet bu Ndakaaru moo jël boobu dogal est-ce que bu ñu ko continuer nii kuréel goog nga xam ne daanaka moo fi des ngir xeex ba détenu politique yi ñu bàyyi leen waaye itam élection bu ñëpp di bokk Ousmane Sonko notamment ak yeneen ak yeneen dina amati doole jum jàkkaarloo ak nguur est-ce que kon président Macky Sall du dafa nar a faagaagal ñëpp après teg fi li mu bëgg doonte nee du bokk pour élection bi di ñëw waaw loolu moom je pense que li ñu war a ñaawal euh, bu nekkee démocrate euh, moom je me souviens en deux mille onze euh, am na loo xam ne la acte bi di président Abdoulaye Wade di posé la d' accord ici xeex naa ba am lu mu bëgg et aujourd'hui disons réalité boobu moom la moom moom moom la gis na ça en face de lui mais li ñu gis avec l' administration territoriale depuis vraiment deux mille douze ba léegi daal la plupart des événements les grands rendez dañ ko dañ ko les grands rendez-vous dañ ko dañ ko saafane dañ ko dañ ko dañ koy kii donc euh, bu amee nii ay demande pas demande manifestation sax parce que constitution bi waxul loolu constitution dafa ne la yëgal da ngay yëgal rek n'est-ce pas ak auto informé disons autorité administrative bi mais boo xoolee les grands rendez-vous euh, vraiment majorité grands rendez-vous yooyu souvent la plupart du temps la première fois dañ koy dañ koy dekkal euh, préfet bi n'est-ce pas du d'accord trouble à l'ordre public ñoom seen donc loolu je pense que baaxul ci climat politique bi surtout climat bu ñu nekk nii man bu ma nekkoon à la place du président de la république damay euh, damay damay damay autoriser disons euh, euh, disons manifestation boobu ma jël les forces de défense et de sécurité ñu encadré ko parce que on a suffisamment macha allah de forces de défense et de sécurité boo xoolee mbedd Dakar boo amee tout ñu ay ay ay ay ay ay ay forces de défense euh, ngay gis donc ñooñu mun nañu encadrer marche bi d'ailleurs euh, lii euh, réalité bu wone mooy chaque fois que bu ñu disons autorisé entre main benn marche rek wala benn rassemblement du am. du am du am. débordement du mm. am débordement du am dara. Mm. donc loolu bu ñu ko xamee pourquoi ñu bëgg a sonal su sonal suñu bopp suñu démocratie yi ku bëgg a vraiment disons manifester dañ ko war a accompagner n'est-ce pas encadrer ko donc li di préfet bi def quelque part aussi c'est un message c'est un message à l'endroit disons des des des des gens n'est-ce pas ñoo xam ne dañuy dañuy demander à manifester maanaam acte démocratique. saras doo loo xam dañ koy maye noonu donc même boo jëlee l'exemple du président actuel en 2011 dafa xeexoon pour yelleefam dafa xeexoon n'est-ce pas pour les acquis démocratiques ba mm. mu am donc on a l'impression que autorité administrative yi c'est ce message là qu'ils ont voulu lancer à tous ceux qui bëgg a manifester euh, parce que dañu pour à l'ordre public après bon je pense que dans tous les cas pour man daal dañu waroon bàyyi euh, euh, des manifestations ensuite ñu encadré ko te loolu des participer de mon point de vue disons à la à la description nest pas du climat politique parce que fu ñu nekk nii daal euh, vraiment euh, euh, voilà donc am na yoo xam ne daal vraiment le le climat le climat est lourd atmosphère est lourde mm-hmm. waaw neexul te loolu soxlawuñu ko mm. ci dëkk bi donc président mun na jàppale peuple am vraiment yenn yi mu mu ko mais en prenant toutes les dispositions sécuritaires pour Sénégal bu bëgg a manifester am mu manifester te histoire sax woon nañu ne bépp manifestation bu ñu autorisé du am problème problème saa yu amee mooy dañu ko tere gars yi forcé dañ ko tere dañ ko tere donc mm. waaw loolu moo tax ma ne vraiment carte yi ñu ngi si loxo président de la république monsieur Macky Sall moom rek a dimbale Sénégal naka la ko mun dimbalee mooy vraiment euh, mu nangu euh, que démocratie dafa war a exercer wu nit dañuy am droit dañuy am tamit devoir mais nañu bàyyi gaay gaay am seen droit ñu exprimer ko mais en prenant disons la force de l'État vraiment encadrer toute manifestation. jërëjëf euh, Bakary Domingo Mané amoon nañu mbégte lool dalal la doyen ci matinalu Rewmi FM fàttali ni journaliste nga mais aussi analyste politique jërëjëf. waaw jërëjëf.